donc il faut que ñu adapté wu suivre africains yi surtout la jeunesse suivre leen ci seen logique et que seen logique c'était actuellement euh, Pastef naa la léegi waa ji dafa am euh, vingt quatre heures def un million de vues donc loolu euh, message la bu ñu leen lancé message boobu message bi euh, li ci li ci nekk euh, Birame Souleye il a fauté ah à mon avis il a fauté et lui-même il reconnaît qu'il a fauté parce que def na vidéo jéggalu donc il reconnaît qu'il a fauté hmm. alors il a fauté France 24 mel ni dafa euh, bon RFI ci benn article mel ni dafa ñëw ne non non il n'a pas fauté dafa joxe opinion am ñu jàpp ko ce n'est pas ce qui s'est passé oui nooy comprendre loolu bi c'est-à-dire ils ñoom seen i démarche ak li nga xamante ne moom mooy philosophie jeunesse bi philosophie euh, population africaine <laughs> loolu bëgg a wax ne kon finalement ñoom am nañu seen candidat ah, nga ñu bëgg a am nañ seen i intérêt qui sont en train de charmer ils sont kan ils sont en la population et la jeunesse loolu moom mooy la réalité à travers à travers Ousmane Sonko impérativement parce que koo xamante ne vingt-quatre heures nga def un million de vues tu te rends compte de sa popularité boo bëggee gars yi jox la nopp da ngay dem tamit euh, topp ces directive moo tax ma ne la les rapport de la France Afrique dafa wëlbatiku tey euh, ñu bëri rendre ñu ci compte donc fi ñu toll nii France day essayer tirer sa légitimité auprès de l'opinion publique africaine d'abord parce que article bu ñu def li ñu wax ci Birame Souleye loolu ce n'est pas exact du tout maintenant euh, comme que ñoom dañuy am seen position politique di ko assumer hmm. pour moi le gouvernement sénégalais pouvait se passer de ce communiqué là ah oui, ah oui bien sûr parce que ne parce que fii nii am na euh, Sénégal fii y a des yoo xamante ne hostile au régime hostile au régime am na ay organes yoo xamante très docile mais man dama jàpp ne ku nekk sa choix la jarul xas ne jarul xuloo RTS nii la mel diw ma leen nee la mel. mais jàppoo ne comme ni nga wax sànq nii bu fekkee ni ñoom dañoo def traitement boo xam te ne teguwul ci dëgg. que gouvernement bu Sénégal rappelé leen ne leen nañ fexe ba non non pour man seen i position yu ñu affirmé seen responsabilité la seen choix la seen euh, kii la. Hmm. mën nga mën nga mën nga mën nga am droit de réponse def ko fa. Hmm. yoon may na la ko mais pour man jarul comme nii ñu ko defee d'autant plus que. ils ont la capacité euh, am nañ euh, sañ-sañu arrêté France 24 ans ak RFI fii ci Sénégal. mais bien sûr. pour moins que ça le signal de Walf a été coupé. pour, moins, que, que ça oui bien sûr. parce que ñoom ñoo wax ay euh, intervention ay ay ay traitements yu subversif ñoom ñoo ko wax. c'est un peu à peu près ce qu'ils avaient reproché à Walf sauf que Walf dañoo dagg signalam nañ dàq France 24 nañ dàq RFI. ils n'osent pas le faire et ils ne le pas léegi nag ils se contentent de communiquer mais tey jàpp naa ne organe bu mu neex jëlal sa ligne éditoriale bu la neex bu la neexee nga ñëw assumer ne man Pastef laa bokk jot na TV. Hmm. bu la neexee nga ne man APR laa bokk ba pare yore sa organe de presse bi journal soppi amoon na fi journal euh, Cheikh Anta amoon na fi journal ainsi de suite donc kon jarul lu ni mel léegi nag le deux poids deux mesures moom mooy signé nañ euh, coupé nañ signal Walf hmm. te signalu euh, France 24 ak RFI ñu ngi dox ba léegi. on doit aller au-delà de kon. mën nañ ko ils peuvent le faire que ñu koy taal dañ ko def. alors donc kon comme que dañoo nekk ci logique gu euh, ñoom defante. ak France 24 ni ne France 24 ak RFI li ñuy def nangam nangam. def communiqué bu dooy waar. mun il pouvait ne euh, pas se limiter se de communiquer mais quel que soit Alpha ñoom France 24. li ñu xam xel mooy. la réalité politique Ousmane Sonko. mu ngi fi mënuñoo continuer. di def nañ daal def ci ay ñoom am na ñoo am na ñu fi yàggoon a am ces genres d'idéologie ah. nationaliste anti France euh, parfois panafricaniste revendiquer souveraineté ni ko Ousmane Sonko di defee mais loolu bu amaan da ngay gis ne France 24 RFI comme ni ko euh, Thierno waxee nekk la bras armé diplomatique de la France dañuy ñëw jàkkaarloo ak yow. tey jii Ousmane Sonko euh, il n'a pas dit France dégage. parce que dama gis ñu bëri di def tamit ama garam bu mel wala tappale bu ni mel. en tout cas yàgg a ànd ci accord de c'est son droit le plus absolu. musul ànd ci c'est-à-dire France na muy nootee Afrique. asphyxier son développement. musu cee ànd. mais mais mais li ma bëgg a wax mooy. France dégage. Hmm. ak Pastef bokkuñu. France dégage plateforme la. Hmm. plateforme boo xamante ne waxul na dama bañ France. dafa ne ci benn programme parce que je suis témoin je membre fondateur ba ñuy teg frappe boobu noonu bokkul woon dara ak lañoo bañ France français dégage li mu doon wax mooy pour la souveraineté monétaire. Hmm. France na génn suñu conseil d' France na seppi loxoom ci franc CFA. mais waxin bi avec le fougue de jeunesse moom moo andi. ñu ne France dégage mais la structure ne s'appelle pas comme ça y compris bon dafa bëri amalgame ñu naan ki doon wax France dégage moo waxuñ loolu loolu dina ñëw ci pàcc boobu surtout ci interview am bi moom euh, Ousmane Sonko bi nga xam te ne sànq Euh, ci speech u euh, Pa Moussa mu mel ni am na ci yoo xamante ne xëy na euh, da nga cee àndul wala ay précisions yoo ci mën a indi laataa ñu avancé. ci li sànq ci traitement beeg ya ci aju. est-ce que du ñu respecté sénégalais yi tuuti itam ci dëkk bi. mooy. jàpp ne sénégalais itam am nañ tuuti intelligence. xam nga hmm. bu ñu toggee ba tey naan mosu Sonko mosu wax France dégage. loolu manque de respect la quoi. fu mu ko waxee. non voilà nga baal ma. gis nga. nopp léegi question bi dafa leer rek fu mu ko waxee. léegi jarul nopp jarul kii da nga naan fii la ko waxee. gis nga manipulation. Hmm. dafa baaxut. réew mi dañ ko bokk. keroog dama toog ci ëtt bi. Hmm. Ousmane Sonko am lu mu wax. ci général Jean Alfred Diallo ak digganteem ak Senghor. waay dégg nga mu ne sax da ngaa mu ne juumuma ah. mu ne Senghor léegi lu mu ko waxee ci olof textuellement. xam nga entre ce qu'on ak ce qu'on entend mooy les sept paliers de dégradation ci information. waaw loolu day compliqué. bu général bi di joxe ordre balaa muy egg ci capital bi dafay kii cap caporal bi dafay jaar ay dégradation yu bëri entre ce que dit le général ak ce que retient le caporal finalement du bokk dégg nga mënu ma ko wax textuellement kon ma ko waxee mais kuy dégg xam nga ne lu soo Sonko wax mooy euh, Senghor dafa bëgg a dal ci kaw askan bi Jean Alpha Diallo ne ko duñ ko nangoo mu am fii loolu laa amul du dëgg et je défie quiconque ne loolu mu wax dëgg. ku xam diggante Jean Alfred Diallo ak Senghor Jean Alfred Diallo moo installé presque Senghor ci pou moo ko restauré ci pouvoir bi en 1962. Hmm. bi mu jotee ak Mamadou Dia ba pare. seen diggante mu roog soow la woon mu suñu réeroo xam nga lu am. Hmm. nguur gi Senghor nangu na ko nangu na ko perte ñoom ñu protégé ko mu ne ko moo moo président dugal sa camp sa pare nga toog parce que Senghor dafa bëggoon bàyyi bëgg bi armée bi. Hmm. li may wax ni ay kilifa ñoo ko témoigné et je défie quiconque loolu Ousmane Sonko wax du dëgg li ma wax mooy dëgg. d'accord mais. bu ñu avancé de la même manière waaw frappe France dégage bi nga. dugg ci politique. xam nga dama ne dox bi bu mu bëggee siw daal la kër baayam mooy boo hmm. bëggee siw yenn saa yi da nga wax ju rëy xam nga nga ñëw rek ne yaa ma dégg sa. waay na fi nañ fi jëlee CFA bi. am na part de quoi qu'on dise. Hmm. y a une servitude monétaire quoi qu'on dise parce que dafa am des instruments de souveraineté ci dëkk. lu mel ni ay monnaie ak yooyu noonu. encore que ñu naan ñu doon xeex CFA bi ñooy théoriser monnaie locale de la Casamance. alors que zone boobu dafa am rébellion damay jaaxal xam nga alors que tey Afrique ku nekk xam nga ne li ko tardé mooy rébellion yu bëri irrédentisme yi balkanisation bi ñi koy gën a exacerbé xam nga ne bi ñu wax monnaie locale du loolu la ci jublu woon li nga non defal ndànk grand hmm. xam nga defal leen ndànk tam bu dee nag Sénégal ñu expliqué non xam nga bu dee Sénégal dañoo bëgg ñuy foye suñu xel hmm. waaw d' accord d' accord ana monnaie locale ba dafa taxaw finalement et après où est la monnaie locale mais c' était à usage de rek hmm. parce que foofu am na benn sentiment régionaliste boo bëggoon yaa may dégg que am rek pour local yi loolu kese la et c' était très dangereux c' est un précédent très dangereux mu ne ak yooyu attribuer souveraineté la mais ku ku déggul ne Ousmane Sonko ñu bëri ñu ko daan topp. Hmm. discours am contre la France moo taxoon. kan rek moo comprendre toon loolu bi muy doog a dugg ci politique dama ne à quoi on joue léegi nag finalement. quoi ñii ñii manipuler nii ñoom lan la ñu bëggal léegi ñoom nga dama ne. France dégage manipulation mooy la. ci li ngay wax nii. la mooy la parce que moom bu expliquer léegi. ni kii li mu waxee nii laa ko jox exemple. moom moo tax ngay wax lii nii. kii li muy waxee léegi. wax seen discours yu bees yi ñoom. il paraît que même Guy Marius Sagna sax frappe France dégage woon il paraît que France dégage bi dindi na ko léegi. ah waaw frappe rek ngay wax waxatuñu France dégage. mais quand la Guy Marius Sagna déserté le combat contre l'impérialisme au profit de questions domestiques te kañ nga gëj a dégg Guy Marius si xeex yooyu. dañu may laaj rek kañ nga ko gëj a dégg. loo bëgg a wax foofu yow. non xam nga bay ragal. Hmm. voilà dans l'histoire pour dafa ñaar situationnisme. waaw ah. mooy un adepte du prêt-à-porter idéologique koo xam ne son esprit est disposé à changer quand les vents et variations de la fortune l'exigent de lui qui peut être Ousmane Sonko. parce que waa ji da nga koy dégg mu ne ñun lu tax ñu dugg ci politique mooy xeex ay ñoom Karim Wade yooyu ba moo tax du ma jël Karim Wade mais bu ko circonstance expliqué mu ànd ak Karim mm. waa ji da koy gis ci livre mu critiqué Atepa bu jàpp yàq ko lu mel ni xamee moom moo fi dugal Franck Timis moo ñu teg nii lépp ci pétrole bi ça n'empêche pas de jouir des moyens de Atepa bu jàpp à la présidentielle de 2019 entre ce que dit Ousmane Sonko ak ce qu'il fait y a un décalage. léegi y a un entre la noblesse du discours et la routine des actes. léegi moment bi ñu ci toll nii ne chaque fois bi coronavirus bi di am rek dañoo terroriser lu tuddee l'effet pangolin waaye Quai d'Orsay moo ko théorisé ñu ne dëkku Afrique yi bëri day ñëw disparaître boo matul ay état moo tax nag léegi nag il faut que France capte dynamique boobu noonu jéem a teg am ay interlocuteurs yu bees. Hmm. parce que les régimes là sont corrompus alors que France li corrompre suñu régime yi loxoom mi ngi ci France moo ñu doon imposer ay bongo ay Houphouët-Boigny ñi gën a corrompu ci Afrique xeex ay Modibo Keïta xeex ay euh, Olympia bu Togo. xeex ay Thomas Sankara teg fi ay Blaise Compaoré donc la France est mal par placée pour parler de corruption pour pointer une corruption en Afrique. Sonko dafa bokk ci ay interlocuteurs la jamono ji. non dafa nekk rek xaaral léegi nag boobu noonu ma ne ñii. Ah. xam nga boo introduire l'histoire mooy à chaque fois ñoom bu ñu amee lu leen jaaxal. Hmm. dañuy dëjëte ci fi nekk andi seen i nit. boo xam ne Pascal kii Denis Sassou Nguesso au Congo Brazzaville c'était un militant marxiste. Hmm. mais fexe nañ ba retourné ko def ko seen nit. et seen ku doon xeex France la dans les années 70 mais quand ils ont besoin ku leen xeexal Kadhafi ak Bunkuni Wedde bi nekkoon Tchad dañoo utiliser Hissène Habré xam nga lu Mitterrand wax conseil bi boobu maa ko nangoo ci benn livre bu tudd secret de président Vincent Nouzy bind ko. Hmm. on a besoin pour un moment rek. mais c'est pas un un allié fiable. léegi loolu bëgg wax boo ko contextualiser. moo tax bi ñu paree rek ci kaw ki jiitoon agence ko ñoom ñoo fi déjati Hissène pour pourquoi ñuy nangu di nekk seen marionnette am na ñoo wax naan ñoo jàppale Macky Sall ba falu pour xeex Ablaye Wade même bu mm-hmm. amee du may déet du ma na déet. Mm. léegi tey kon donc dem nañ ba. même procédé. même procédé bi tam ñu bokk utiliser waat. ah jël fi Macky Sall teg fi benn opposant est-ce que loolu mooy seen projet tamit damay poser question. Mm. mais dama ne ñu bees ñii nii tey les traîtres à la patrie les traîtres à la cause panafricaniste tey te mosuma leen gëm parce que quand on n'est pas ñii di wax ni yëpp ay France de gaz man dama dañoo de ay cëpp lay lañ ay lay cëpp dañoo tëb rek kenn gisu leen ma ne ñii seen wax waxaguñ ko de parce que du ma gisu ñoom bagage bi. xam nga hmm. panafricaniste buy wax day am culture day dugg ci Modibo Keïta day dugg ci rassemblement démocratique africain créé en day gis si moom benn background day gis si moom loolu nga gisoon ci Sékou nga xam ne diplôme yi du bëri sax mais buy wax tu la flamme révolutionnaire. ko ñi c'est des adeptes du prêt dégg nga ma au service de leurs intérêts uniquement et prêt à tout pour accéder au pouvoir. Hmm. machiavélique léegi dama ne nag léegi dañu def attention parce que tey euh, toujours intérêt Sénégal bu taxawee ma li ma gëm mooy Macky Sall Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall dañoo war a def benn say. politique étrangère souvent la nga xam ne nii politique étrangère la. ñu am ci benn kii buñ ci di wuute. Hmm. parce que ñoom xam na ñuy def dañuy jël bopp tojee bopp. mais lan la lan lan nga jàpp ni loolu la xëy na nguur gi ragal ko loolu ba tax xëy na mu jaral leen tey ñu génne rapport pangolin boobu dafa am ñu fàtte tey gis naa benn journaliste pro Sonko bi nga xam ne keroog Sonko bi waxee France 24 ba pare rek mu koy jëm exploité dégg pour wax ne léegi dafa mel ni sax day déggal li ñu ne France Sonko lay jàppale genre yooyu daal Macky hmm. Sall France la ragal ak yooyu lu gàcceelu loolu lu ruslu ci der hmm. ñuul ci sëtu njaajaan njaay ñu doom d'accord mais ñëw xaaral sax dafa ne dëkku Afrique yu bëri dañoo instable dañoo fragile sauf ñaari dëkk liraat ko Rwanda ak Sénégal sauf ñaari dëkk Rwanda ak Sénégal Sénégal nag xam naa benn wàllu stabilité baatin bi fi nekk dimbal nañu ci stabilité baatin bi hmm. waaw